et prions que nos travaux se passent dans d'excellentes conditions. Je profite aussi de l'occasion au nom de mes pères, anciens footballeurs et autres acteurs du football, pour féliciter le président Djibril pour son élection de ce matin. Une élection qui se passe sans anicroche et qui espère euh, va nous donner un bel exemple pour l'élection de samedi prochain. Dans le de on y fait quelques diamants merci euh, pour éviter d'en oublier un, j'ai amené les statuts de la Fédération sénégalaise de football, les groupements associés, à savoir ONCAR, IACI, foot féminin, bis football, football de salle euh, et football travailliste. Nous avons écrit football corporatif, mais il y a une évolution et heureusement qu'on nous l'a signalé à temps. Euh, cette formation des formateurs, pour moi, d'une importance capitale. Parce que c'est par la formation que nous parvenons effectivement à améliorer la qualité de nos pratiques. Et en améliorant la qualité de nos pratiquants, c'est sûr et certain que les résultats vont être au bout. Nous savons ce qui se passe. Nous avons vécu des moments extrêmement difficiles de notre football. Nous pouvons effectivement parler très longtemps du football de notre pays. Nous avons vécu toutes les péripéties. Nous savons d'où nous venons. Nous avons vécu des périodes extrêmement difficiles l'histoire du football sénégalais est parsemée d'embûches. Mais grâce à la solidarité des acteurs du football, euh, nous avons fait face et nous avons régulièrement trouvé des solutions. N'oublions pas que nous sommes passés par un comité de normalisation qui a germé cette fédération. Nous avons été obligés à un certain moment footballeurs, dirigeants, de nous cotiser pour jouer au football. Il faut saluer non seulement les dirigeants des clubs, mais tous ces amis qui ont accepté pendant cette période difficile de faire face avec nous et de mener la bataille. Nous savons qu'à un certain moment, on a été obligé de demander des efforts extraordinaires à nos arbitres. Ils étaient en droit de réclamer ce qui leur était dû. Mais ils ont fait face avec nous en comprenant qu'effectivement, nous étions dans des difficultés extraordinaires. Qu'ils en soient remerciés. Les médecins, lui assurent le football euh, spécifique. Ce football qui nous vaut vraiment de très grandes satisfactions. On n'est jamais numéro un par hasard. Je ne crois pas que le Sénégal, qui trône à la tête du football africain depuis trois ans, euh, l'est par hasard. Je n'y crois pas. Je crois qu'on n'est jamais numéro un par hasard. C'est les efforts conjugués de tous ces acteurs qui nous ont valu effectivement les grandes améliorations. L'ambition du Sénégal aujourd'hui, si nous pouvons nous permettre de dire que les qualifications sont maintenant anecdotiques, tout le monde attend le Sénégal dans les grandes compétitions et nous le devons aux efforts de toute la famille du football. Qu'est-ce qui nous reste Aujourd'hui, nous savons tous qu'il y a une volonté politique affichée. J'ai l'habitude de dire que les acteurs de football que nous sommes, nous avons acquis une très très grande expérience. Nous avons appris aussi de nos erreurs. Nous savons ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire, ce Dieu seul le sait. Mais nous essayons de progresser pas à pas et c'est la raison pour laquelle nous pensons effectivement que le football sénégalais, uni, déterminé, avec toute cette volonté politique, nous pensons que nous pouvons aller chercher ce qui nous reste. Et ce qui nous reste, c'est le trophée. Tous les Sénégalais aspirent à ce que le Sénégal puisse ramener la prochaine Coupe d'Afrique yàlla na ko def di sunu sunu président ah, l'idée du consensus et que le consensus gagne pour qu'on aille effectivement à la recherche de grandes victoires. Nous sommes tous déterminés à aller chercher ce trophée nous passions notre temps à gérer des campagnes. À chaque retour de campagne, on renvoyait l'entraîneur, ah, il fallait dissoudre la, fédération, on renvoyait le ministre et nous repartions à zéro. C'est ce que je dis que nous avons appris de nos erreurs. Étant donné que tous ces efforts sont en train de porter ses fruits, les gars, laissons le fruit mûrir. C'est seulement à ce moment que nous parviendrons à avoir des bonnes mangues mûres pour nos différents desserts yal na yàlla mottali suñu yéen. di nuyu ñi fi teew ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di rafetlu jotaay bi di commencer nuyoo bi suñu grand frère bi wax léegi muy président Ndofène Fall di nuyu le président de l'amical des anciens internationaux Cheikh Ahmed Tidiane Seck ak ñi mu àndal ñëpp anciens entraîneurs yi ak entraîneurs yi nga xam ne ñoo fi nekk yëpp seen association Moussa Ndiaye yow ñi nga àndal yëpp doyen ñu leen nuyu di leen di leen sant di nuyu l'association des arbitres Matar Binte Ndob Seck ak ñi ngeen àndal yëpp ñu leen nuyu ku nekk sa tur ak sant le bus Soko gis naa fi Sita le président de l'ONCAV mon frère président Amadou Kane olof day wax naan ku mu fàtte ku ma fàtte nga jégal ñu ci di rafetlu jotaay bi parce que visage yi fi gis su ma xoolee El Hadj Diouf gis Medoune Mar xam ne xaw ma ban at laa ko gis xam ne yàlla rek moo mën football de wax yàlla pratiqué wu ko waaye nag yàgg naa daw ci stade yi di xool ndaxte Caire 86 am na benn comité. bu fi amoon doon ket opération boobu indi woon fi 210 millions jeune promoteur bi ko sooke woon man moom laa àndaloon di liggéey et je me rappelle koto soirée bi ngeen defoon Sahel maa ko organisé donc aussi daw ci bal ak football di dóor bal bi ak di tàcc kuy football yëpp ñoo war a ànd trouver un consensus pour mën développer le football football nag li mu laaj dafa bari yéen yéen a moo gën a xam am na loo xam ne tey bu ñu ko bëggee def bëgg indiwaat nit ñi on a besoin des anciens internationaux ay saar yu mel ne El Hadj war nañu bokk ci ñi nga xam ne ñoo war a indiwaat nit ñi saat bi li leen fi li leen ciy téye nag mooy entraîneurs yi médecins yi ak yeneen éducateurs yi si topp ñooy téye nit ñi ci saat bi ba nit ñi mën a toog di génne seen xaalis di ko fay. donc tey jotaay bi jotaay bu rafet la jotaay bi ñu war a mën a sàmm la e, ñu ñaan yàlla nag li nga xam ne moom la ñu dëgmal muy consensus bi te yéen yéen a ngi ci biir parce que dañu dañu ne consensus bi c'est entre les quatre candidats non c'est ñi fi nekk ñëpp ci consensus bi lañ bokk te buñ ci duggee rek je pense que dafay jëmale lépp kanam te loolu lañ soxla ñu leen di wax ngeen ñëw te yéen a ngi ci biir wétti le ci dox ci seen waar def ci de waar tey li le war a jëkk def mooy jàppale docteur yi ci ñu ñàkk suñuy joueurs yi supporters yi c'est ñu parce que Sénégal bu ñu nee supporters rek bu 15 millions mon nañu wax 8 millions yëpp ay supporters lañu donc taille bu ñu mes 8 millions de vaccinés am nañu pratiquement une immunité collective donc ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci

quel que soit le vainqueur na ñu ñëpp bokkaat bokk ndey bokk bàyyi pour mën a jëmale football bi mu jëm kanam fii nag gis naa fi ñoo xam ne seen karaw weex na ñoo xam ne yàgg nañu ci football bi il faut ñu booloo bokk ndey bokk bàyyi bu ëllëgee fu foyer tension am président fédération bu mënti doon bu ñu mënti fal bu ñu ko ci xaar ci dara la dem fay ko pour mën liggéey bokk ndey bokk bàyyi parce que ñun ñëpp culturellement on nous dit booy wuti da ngeen nekk benn say boo ko ndey boo ko bàyyi te boo la nekkee benn say loolu wut yàlla leen ko jox ñu gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam. Euh, Seydou Seydou monsieur le directeur de campagne euh, monsieur le président euh, de l'association des internationaux de football du Sénégal chers membres. Euh, comité exécutif euh, de l'association, chers représentants des groupes d'acteurs, parce qu'il y a les enteneurs il y a les arbitres, il y a, il y a euh, le foot corpo, je les ai vus. Bon, l'oncave, <laughs> il est toujours avec nous, donc on, était, est ensemble tout le temps. Euh, le football spécifique, je ne vais pas les citer là-bas parce que je pense que Ouais, je sais qu'ils sont là, mais je pense que c'est comme le football féminin et d'autres démembrements, donc euh, des acteurs euh, pleins et entiers du, football. Donc, euh, je voudrais juste placer quelques mots qui vont dans le sens simplement de dire que dans cette salle, pratiquement, nous avons regroupé, j'ai oublié les, médecins, donc avec docteur Barokargom qui est là. Donc je disais qu'on a rassemblé ici euh, tout le football, certainement dans sa, dans sa largeur. Parce que nous, là, salle, je pense que peut-être toutes les ligues régionales, toutes les régions se représentées, euh, mais aussi euh, dans sa longueur et surtout dans sa hauteur. Parce que la hauteur, c'est pour vous autres, les anciens internationaux. Parce que quand on dit internationaux, c'est que vous avez eu, vous, particulièrement plus que d'autres, puisque des footballeurs euh, porter le plus haut possible quand même euh, le drapeau euh, national ici au Sénégal et un peu partout dans le monde. Donc euh, je pense que, cher, vous devriez réfléchir même, tout en gardant votre... à comme presque un peu partout, en Afrique maintenant, mais surtout en priorité dans le monde de la FIFA. Ces anciens-là, on les appelle des légendes. Donc, quand une Infantino l'a dit la première fois, j'ai dit, mais pourquoi légende bon, Il en fait trop et haut. Mais avec le temps, j'ai compris que, en fait, quand euh, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, euh, ce qui porte le football et le font vivre, c'est justement tous ceux qui ont eu à marquer sur les terrains, euh, l'histoire de ce jeu. Et c'est vous qui faites que quand un petit enfant naît et grandit, il tombe amoureux du football. Il ne faut pas chercher de midi à 14 c'est Ce n'est pas docteur Ngom, parce qu'il soigne des malades. Ce n'est pas Moussa Ndiaye, ce n'est pas moi. Donc ça, c'est clair. Il faut qu'on que nous, on l'accepte, qu'on le vive. Et c'est important aujourd'hui de, de, profiter de cette occasion-là pour rendre hommage à l'ensemble des anciens internationaux, à l'époque, au Sénégal, on parlait des anciennes gloires d'ailleurs. Donc, euh, des, légendes sénégalaises qui nous ont quittés euh, à des différents moments, et même dans ces derniers temps, parce que je suis toujours dans les groupes. Euh, même dans cette dernière semaine, on a perdu certains d'entre eux, plus anciens que vous. Mais simplement, le football sénégalais aura gagné. Et ça peut-être ouvrir une nouvelle page dans l'histoire dans de notre football qui nous mènera aux prochaines séances Coupe d'Afrique, Coupe du Monde avec tout le monde derrière l'équipe nationale pour gagner. Donc c'est ces mots-là que je voulais euh, vraiment vous exprimer ici, du fond du cœur, en vous disant que nous souhaitons que vous soyez avec nous jusqu'au bout et au-delà aussi qu'on puisse être ensemble euh, pour continuer à travailler pour le développement du football et l'épanouissement de, je dirais, de l'unité de base du football, c'est le footballeur euh, que vous incarnez. Donc je vous remercie de votre attention. Merci, Président. Mangek le premier vice-président Aladji Hadj Ousseynou Diouf Aladji Hadj Ousseynou Diouf tey amical bi dafa dalal président fédération tey ni nii sentiment nga am ci euh, d'abord euh, de dañu def remercier le président Augustin Seigneur, bi nga xam ne tey jii moom pour nous waxtaan amical des internationaux du football sénégalais, dont, le président est Charles Tidiane Sek, ou dont je suis le premier vice-président. Donc, nous sommes acteurs du football, nous sommes du football, et je crois que euh, consensus, voilà, que ku que nous bëgg nekk fédération sénégalaise il faut que nous nous ñun parce que les premiers acteurs qu'on le veuille ou non c'est les footballeurs c'est les internationaux et je crois que euh, Taïdi jii wàcce ni mu ëmbalee motax mu wooñu ñu def ni bëggoon gis lolo tax tay jii ñu ñëw déglu ko euh, parole yu mu fi jëlee nag euh, pour woné ni rek ñun ci lañu bokk euh, waxtaan nañ ñun et que dina gëna a solidifier ancien li nga gëna solidifier internationaux yi sen place bu féké mom gagné na élection yi di ñëw le 7. mais comme ni mu ko défé tamit le président Madi Touré a fait la même chose woté na momit ni daf ñu bëgg ñu recevoir dafa bëgg waxanteeg ñun daan dem déglu aussi parce que je crois que lii mooy Sénégal est, on est dans un pays bu nga xam c'est démocratique ñëpp dañu war a di dégloonte et moom it dinañu dégg lu ñuy wax et di dégg lu ñuy wax et di xool suba moom it lan la ñuy proposer parce que il faut que ñu déglu parti yëpp pour xam fan la ñuy teg suñu tànk. merci jërëjëf. waaw ñu ngi taxaw ak président Augustin Senghor tey jii nag ñu lay laaj rek sentiment bi nga am anciens internationaux yi dalal la tey. waaw tey mbégte bu rëy laaj am ci euh, ndaje bi ñu am ak euh, anciens internationaux yi euh, parce que dafa nekk loo xam ne lu ñu soxal la woon ñun ñi nga xam ne ñoo lënkaloo ci maanaam consensus bi ñuy waxee Sénégal man wuti ndam parce que tey kuy wax ne da nga bëgg a defar football bi wax ne da nga bëgg a dem wuti ndam te wéeruwoo ci ñi nga xam ne ñooy suñu ñoo def jaloore football Sénégal Euh, muy ancien internationaux yi man légende yi sax laa di football sénégalais kooku fekk bëggoo dem euh, uti ndam donc tey euh, dañu delloo li nga xam ne anciens internationaux yi ñoo ko moom bi ñu defee suñu tournée national dem ci ligue yëpp ñu pratiquement jeexal ak ñoom pour ñëw weccook ñoom xalaat ci consensus bi ñu nekk wax leen lan moom lan mooy suñu gis gis gis ñu ngi koy waxee suñu gis-gis si wàllu élection yi ñu jëm ak wax lu tax ñëpp war a nekk manko ci consensus bi nekk benn pour que ñu dem outil li ñu amagul ba léegi parce que ñëpp xam nañ ne football bi def na ay jéego yu bare. Euh, donc euh, li ci des rek mooy ñu nekk benn ànd outil li nga xam ne moo ñu dese mooy lan gagné ay trophée delluwaat coupe du monde te yoon boobu ñi fa mës a dem ñoo fa gën a gaaw pour mën yegg te ñooñu internationaux yi la parce que ñoom ñoo sol mayo euh, national ñoom ñoo muyee le mayo ñoom ñoo voyager fu nekk di défendre les couleurs nationales. Euh, manam ndam yi ñu jot a am ñoom ñoo ñu ko jox donc ñooñu muñ leen bay ginnaaw donc loolu defena waru gar la woon ñu ñew wax ak ñom deunk leen suñu bop te liñ fi jëlé tam neex nañu parce que li nañu résolution bo xamné né nee ñu ngi consensus ñu ngi candidat consensus yi pour que le set euh manam ben victoire rek la am moy victoire du football sénégalais ci bir lool nak wax nañ ci tam delu ci ci li am solo moy fexé ñu gëna a li nga xamné moy euh nu ñuy impliqué euh, ancien international ci football bi ku am une di gis ne suñu fédération bi depuis 2009 dugal nañu entraîneur yeeg euh, euh, administratif ak même exécutif yi ko ci association ancien international si bancas football bi yépp tay bo xolé sélection yépp pratiquement mën ay ancien international ñoko yor bo duggé ci administration tay ñu melni ay euh Ferdinand Koli, ca Ben, actuellement Lamine Diata Euh, mun naa citer El Hadj nga xam ne tamit euh, sama conseil spécial Fadiga ñoo ñëpp ñu ngi yëngatu si ci euh, biir liggéey bi Cheikh sec mu ngi si comité exécutif bi nekk fa vice président di fa jouer rôle bu mag parce que moom la ñu dënk lépp li nga xam ne moo jëm si équipe nationale. mais loolu mun nañ ko gën a yokk parce que dafa am solo torop bépp ancien international boo xam ne mun nga indi nga indi ko may daaneele rek ci benn aspect aussi bu am important bañ a di fàtte ñi nga xam ne démb ñoo defoon suñu jaloore muy lan. ñi nga xam ne tey mënuñ leen dugal ci football bi ñu xool nu ñu leen di bàyyee xel pour que lépp li jëm ci wàllu social wàllu santé ak wàllu impliqué leen ci euh, lu jëm ci football bi ñu gën ci yëg seen bopp ñu bañ leen fàtte ñu mun koo doxal te loolu defe naa bu ñu yàlla may ñu génn sélection yi nañ ci gën a jëm kanam mën nañ dem sax boo wax tey pourquoi pas dans le futur mu am ay euh, membre kii bi yoo xam ne mën nañu diriger fédération loolu mën nekk la mais loolu lu ñuy tabax la donc euh, dañuy def rek fexé consensus bi gagné ñu continuer liggéey bi mais internationaux yi dañu am place bu gëna reuy ci football sénégalais C'est suñu nexé yalla merci monsieur le président. merci taxaw ak euh, Ndofène Fall ancien international sénégalais muy chargé de communication momit makoy laaj tey jii nii ñu dalal président euh, Augustin Senghor tey jii ban sentiment nga am AIFS invité euh, Augustin Senghor fi ci Radisson. waaw loolu day day wone ne rek ñun xam nga yàgg nañoo wax ni football bi nag. Euh, ñun dañ cee war a am suñu cër cër bu baax a baax euh, dama gëm ni sa cër nag kenn du la ko jox da nga koy jëli moo tax boo ko seetee depuis quelque temps gis nañu beneen organisation bu association internationale di football sénégalais te loolu moo indi lii tey wax dëgg yàlla dëgg neex yàlla ñun dañoo war a dalal nag ki nga xam ni ñi nga xam ni dañuy dem di di campagne yi Augustin euh, ni ma ko waxee ci biir saal bi mooy ba mu nekkee ba léegi boo seetee équipe nationale yëpp léegi ay anciens internationaux moo leen yor te loolu nag formation ko indi mooy boo fubalee ba pare te nga bëgg nekk entraîneur da ngay dem nag jàngi loola. yow mii ci li nga ne fi mu communication ak euh, euh, presse li ëpp ñi koy def ay anciens footballeurs lañu donc yow it da nga dem jang sa métier loolu de te nag loolu li ñu ko wara a li ñu ko wara indi seen dëgër laay yéen mooy ñun wax fañ ko wara a waxee bu ak ne